jaar-jaari yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci ànd ak waa daaira muqaddamatul xidma ñoo ngi dellusiwaat ak yéen ci fukkeelu jataay bi ak benn ci jaar-jaari yonent yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam bind ba leen ñu weesu ñu ngi woon ci étape bu màkka waaye ñu ngi woon it ci njëlbeenuk étape bu bu ñu waxtaane waxtaanee njëlbeenu woote gi ni risaala bi ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nim ko jotle ñi nga xam ne ñoo ko gënoon a jege lu jitu risaala bi di ñëw tàmbalee ko ci soxnaam sayidatuna Khadija bintu Xuwaylid radiallahu taala anha tàmbalee ko ci abu taalib ali ibn abi taalib mi nga xam ne doomi Abu Taalib la baayam joxoon ko ko mu nekk ndaw ca kër ga waaye ak Seyduna Abu Bakr mi nga xam ne seenuk ànd jiitu na woote bi lu yàgg-yàgg muñ mënoon a wax xarit sax loolu la wax waaye moom yonent bi moo ma sa wax ne bu doon tànn xarit Abu Bakar lay tànn xarit loolu waxin la woo xam ne mënees na cee dégg ne moom xaritu bi yàlla rek la moom yonent yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam njëlbeenu woote googu nga xam ne nit ñi ñi ngi doon ñëw ñu baree bari jaar ci loxo yi na Abu Bakrin limoon nañ seeni tur waxoon nañ lim bu takk ñoo xam ne nii ñëpp ñu ngi duggee ci lislaam ci sababu Abu Bakrin as-Siddiq ngir ne moo leen ard risaala bi maanaam li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jotalee ñoom it ñu nangul ko mu yóbbu leen ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam lim boobu bañ tàmbalee di xaw mel ne luy xat tuuti di bari ci lañ jël daarul arqam ibnu abil arqam moom it taxawoon nañ ci wax ci lu yaato yaatu foofu lañ doon dajaloo ci waxtu yoo xam ne nii baaxuwuñoo xam nit ñuy dajaloo ci waxtu yooyu yooyu yëpp rek ngir bëggoon rek li ñuy def mu nekk ci sutura soo xam ne danañ dem ba li ñuy nas ak li bëgg danañ ko am ba waxtu jottali ko nit ñëpp jot ñu jottali ko loolu ci technique bi nga xam ne moom la yonent bi doon doxal ci woote bi ba yàlla may ko ci ndam ci la bokkoon biñ demee ba nga xam ne nag lu man ñetti at yoo xam ne ñi ngi ci anam boobu maanaam anamu li ñuy def lépp day yem seen diggante da yem seen biir ñetti at yoo xam ne mën nañ ni li ñuy def it biir màkk yëguñu li yëguñu li xew li ñuy def lépp kenn ku ci nekk am nga kóolute ak mbaax goo xam ne ak seetu xol goo xam ne yéene ju rafet yoo xam ne buñ la waxee lislaam ji danga am kóolute nëbb ko ba keroog bi su fésal ko jot loolu moom ñi njëkk a wuyu am na def nañ ci liggéey bu am solo ndax bu bu bu li ñëw ci ñoom bu sennoon rek euh, mën naa am ay gàllankoor ca jamono jooju waaye dañ ko téye sutura soosu di ko doxal nañ ko war a doxale ba ñetti at ya mat ba nga xamee ne nag ñu ngay bëgg a mat lu mat fanweer jàpp ñeen fukk lu man ñetti at ci la borom bi nag wax ca aaya boobu nga xam ne mi ngi ci suuratu Shu'ara borom bi di ko ci xamal ne ko nag xuppal yow Muhammad xuppal maanaam yaatalal woote bi ci giir yi nga xam ne ñooy yi la gën a jege wa anzir xasirataka al aqrabin da nga xupp giir yi nga xam ne ñooy ñi la gën a jege yonent bi it saa yu ndigal ñëwee rek ak xutuura ba li cay am yëpp maanaam danger yi ci nekk yëpp euh, teewut fit wi moom foo ko takkoon weesu na ko ci la daal dem nag yéeg ca doj wa ñuy wax jabalu safaa jabalu safaa doj la woo xam ne boo ci fa yéegee day mel ne dangay tiim ñëpp te boo waxee ñëpp ay dégg ba mu fa yéegee nag daal di woote nag giir yi nga xam ne ñooy giir yi nga xam ne yépp ay mbokk lañ ci Xurays nga xam ne ku ci nekk rek bu la tuddee mbokk ngay doon ci moom am na loo doon ci moom mu naan yaa bani Fihr yaa bani di lim rek giir yoo xam ne ku ci nekk rek bu la tuddee am na loo bokk ak moom foo ko féete ci wàllu mbokk te giir yooyu ëmb ay mboolooy mboolooy mboolooy nit ñoom it niñ xamee jëmm ji nga xam ne moo yéeg ci jabalu Safa muy Muhammadu ibnu Abdullahi ma seesu ko gis ci ay caaxaan ma seesu koo dégg ci li su ko warta dégg moo tax ñu bari sax xaw na leen la jaaxal ndax jëmm ji kat koo xam ne daanaka doo siggi xool nit ñi doo wax ca kaw doo toog ci garam place doo dugg ci caaxaan bu demee ba yëg ci jabalu safaa ga nga xam ne ñaare ku am lu la loo bëgg ñëpp yëg ko fa nga yéeg mu yéegal fa boppam wooteel boppam ñoom it ku ci nekk yëg sa bopp ne tudd na giir gi nga bokk am solo gi yonent bi am solo tax na ba mag ñi ku muntoon a dem dangaa yebal ndaw ne ko demal ca Muhammad ibnu Abdullahi woote ba muy woote la muy wax nga diglul ma la muy wax waaw ñu ca mën a dem ñëpp it dañoo dem taxawal seen bopp toog nag fas nii diglu nag la muy wax ba mu yégee ci jabal safaa mbooleem li ko wër ci ndeyjooram ci càmmooñ ak li ci kanamam lépp fees dell ak mbooloo boo xam ne ñépp ñu ngi ni siggi ne ko jàkk ana lu mu bëgg a def li mu bëgg a def mooy jot li woote borom bi subhanahu wa taala mu ne leen ndax su ma leen waxoon ne leen day am na arme bu mag a mag a mag ab jayis ñu war maanaam war ci ay naaru góor ñëw wut si leen am luñ bëgg ci yéen loo xam ne du doon jàmm moo ndax dangeen gëm li ma leen wax ba mu loolu mbooloo ma ñépp ñoo waxal seen bopp ne ko ñun day mosoo ñoo wax lu amut man ngaa daal di wax li ngay wax loo wax rek danañ ko gëm te danañ jàpp loola loolu it ba mu koy wax ka gënoon a fés ci mbokkam nga xam ne ca ginnaaw ci ak gan ak jamonoom tuddoon nañ ci mën nañu wax sax lu rafet li nga xam ne ji ko wala mbégte mi nga xam ne wane na ko ca gan jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom daal teew ca jataay waaw fés fa lool nag mu ne leen man de ab yonente laa boo xam ne dama leen xupp di leen xamal ne leen bu ngeen moytuwul dey mbugalum yàlla borom bi mën naa dal seen kaw ana lu tax loola loola mooy li tax loola mooy dañoo xuusoon maanaam dañoo nuuroon bu baax a baax a baax ci lëndëm lëndëm googu nag mooy li gën a bon ci xeeti mooy yi mooy shirk mooy bokkaale yàlla ay jaamu xërëm ci lañ nekkoon leen damaa leen woo ci yàlla ba mu waxee loolu it même wax ji sax bu nekkul direct arab yi dañ boo masaa junj rek ak mustalahaat yi ngay jëfandikoo rek dañu daal di ndax nazir la jëfandikoo dañu daal di xam ne kii day woote yonente ah am na ci jataay ba nag comme ni ko nettalikati siré yi waxe am na ci ñoo xam ne amoon nañ mbégte fierté lool ci yonente biñ doon xaar ci ñoom la jóge ñoom arab waaye ci ñoom Banu Hashim seen bopp ci la jóge waaye Abu Lahab moom ci boppam moom daa mel ni daa dogaale yonent bi wax ci kàddu gu toll ne gam waxoon wax ci kàddu gu xumb daa di jaar ay baat yu xaw a ñagas ne ko tabban lakk Abu Lahab moo wax loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne ko ali haza jamaatana mooy yow ndekkee daal <laughs> lii dong moo taxoon nga dañuy woo yow daal baatu tabban daanaka maanaam soréewute ko saaga wala ñaanal ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan yàlla wala aw ñaan yàlla wala wala saaga yëpp mën na ko mën mënees na koo firee waaw bi mu waxee lool rek yow daal nag ñoo yepp lu ñàkk jaar fu ay kàddu yu xaw a doyadi sax yu yu doy waar yoo xam ne euh, doyadi gum doyadi ak diis gum diis moo tax borom bi daa jëlaat kàddu yooya ba dolliwaat ci sax jëmalewaat ko ci Abu Lahab mu ne ci téere bi yàlla bi ñu di ko jàng muy tabbat yadaa abi lahabin wa tabba maa axnaa anhu maaluhu wa maa kasab suñu boroom wax ko ba waxaale ci sax wamraatuhu muy soxnaam soosu nga xam ne mooy ummu jamil nga xam ne moom it ginnaaw woote bii danañ aw turam dana fës lool ci xeeti ñaawteef yoo xam ne ak xeeti métital yoo xam ne doon na ko jëmale ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci loolu nag ah yëf yi nag léegi kenn nëbbatu ko fis na ci la yonent bi sallallahu alayhi wa nag commencé di woote am na ci borom xam-xam yu ne keroog ba mu taxawee ca jabalu safa la wuyu si woon ci ay nit yu am maanaa yoo xam ne ci ay jiir lañ bokk ku ci nekk rek maanaam ab sang nga ci famille bi nga bokk am na ñu koy nattale ci ne ñeent fukki nit yi ëppoon na ko am na ñu naan sax ñeen fukki nit ak juróom yoo xam ne toggoon nañ ca jataay boobu euh, ci seen biir Abu Dahab mu wax wax jooju moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu boo demee ci Buxaar yi nettali na ko muslim nettali na ci mooy xisab woote boobu ak la ca xew lépp borom bi it daanaka ay yi ñëw yëpp fas dax bi maa tu'mar xeeti ay ñëw yëpp daanaka rek day day da koy gën a ñaax ci mu yaatal woote bi loolu nag mu àggoon ci sax ba wax nañ ni jamono jami wax loola booba aj dafa jub si woon maanaam aj googu nga xam ne xabaayil euh, yi wër màkk wala arab yi fu ñu mën a nekk ci alamul arab yi dañuy ñëw ca màkkatal mukarama di aj ci seeni xéram ñi di wut si kaaba gi booba loolu moo jege woon ba ñoom sax ñu ngi doon waxtaan ne lii Muhammad nekk buñ ci gaaw di wax ñii aj si buñ ñëwee bu leen ko waxee dana gën a am doole te danañ ko wuy si li ñu njëkk a def mooy yonent bi continuer ca loola di di leen wax xamal ne leen li ngeen di jaamu ci ay xiram mun leen a jariñ dara di leen xamal tawxiid muy wéetal yàlla di ko def ci anam ba nga xam ne moo gën a nooy gën a rafet ca borom bi sante ko ko noonu subhanahu wa ñu dem a dem ba nga xam ne daal ñoom dañoo mujj def benn wafd benn benn commission boo xam ne moom lañ moom lañ moom lañ takk wiin moom lañ wut ñu ne nag dañoo bëgg a dem ci Abu Taalib ndax wax dëgg yàlla euh, Muhammad ibnu Abdullahi mii sallallahu alayhi wa sallam bu njëkk-njëkkee attaqué ko rek Abu Taalib ak ni mu nekk sang ak ni mu nekk kilifa mën naa indi ay ñagas-ñagas te ñunu neen la ñunu neen la nañ waxtaan suñu biir ñu dem wax ak Abu Talib mi nga xam ne ci ay loxoom la nekk ci ndigalul dégg nga maam Abdul nga xam ne mooy seen sang nekkoon seenub sëriñ dañ wax ak Abu Talib daal mu wax ak doomam jii nii mu bàyyi lii mu nekk mu bàyyi li muy wax suñ xere mi mu bàyyi lii muy woote munta ñëw rek soppi li nga xam ne ay baama ay baayam ak i maamam ci lañ nekkoon wala suñuy baay ak suñuy maam ci lañ nekkoon ñu daal di d'accord ci loolu kon ginnaaw lii ba mu amee xew-xew bi yonent bi continuer ci lim mu ñoom façon xeex bi njëkk a def mooy wut benn commission boo xam ne dañuy dem ci Abu Taalib ne ko mu wax ak Muhammad ibnu Abdullahi mu bàyyi lii mu nekk waaw bañ àggee ci Abu Taalib keroog fekkuñu ko fa dañoo ñëw wax ba àggal Abu Taalib Abu Talib it nangu daanaka kàddu gu ñagas wala gu ñaaw du nangu ku ko jëmale ci yonent bi te moom du ko ci jëmale waaw cofeel gi mu amoon ci moom moom euh, foo ko takk weesu na ko Abu Talib waxoon nañ ci moom lu yaatoo yaatu ca bind yële moom mooy kan yan anam la yonent bi ñëwee ci loxoom ak njabootam yu baree baree baree bari ci bind yële ñu weesu ndax dañuy def tur bees woo xam ne nii tur yu woo xam ne nii wuy feeñ la lu bari saa yu ñu koy tudd rek dañ ciy wax ca boroom moom mooy kan loolu bind yi ñu weesu yépp noonu lañ doon doxalee waxtaane bi yonent bi sallallahu alayhi ci kër gi Abu Taalib ko mu ñëw ne ko mu ne ko kat euh, waa Màkk ñëwoon nañ fi waa ñëwoon nañ fi nag mer nañ lool mer nañ la lool ñoom daal lañ leen wax naan li ngay wax te koo bàyyi wala nga seet anam boo koy defee wala daal boo koy defee nga bañ a tudd xërëm yi bañ a tudd lii ak lii ak lii seet nangam ak nangam wax daal wax joo xam ne eh, nañ ko waxee woon mu jottali ko noonu yonent bi waaye yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci dëgër gi ak eh, xam li ko yàlla jox ak li ko sant lam wax mooy buñ jëloon weer wi teg ko sama loxo ndeyjoor bii jël. jant bi te ko sama loxo ndeyjoor bi weer wi ñu ko sama loxo càmmoñ bii ngir bàyyi loo ma lii ma nekk lu tax ma bàyyiku mukk lii ndigal la lu ma borom bi sant te fa su ma yéenee bàyyi ko benn yoon waaw keroog wax ju dëgër jooju la tontu Abu Talib ah, alxuraan ji ñëw wax ji di alxuraan jii di ñëw musuñoo dégg arab yu mel noonu musuñoo dégg wax ju neexe noonu musuñoo dégg lu tënkoo noonu ana lu njëkk a def ñoom bu ñu ko fekkee muy wax ñu ne leen da def ndànk ci kii di wax kii kat wérut waaw li ñu njëkk a def mooy commencé nag di ko di ko di ko reetaan maanaam di ko di def soxriya ak istihza maanaam di ko wàññ xeeti kàddu yu ñaaw yu ne ñu tuumaal ko ko bokk na ci lañ doon wax mooy yow mii di wax wax jii di ñu indil ay wax naan yàllaa ko wax wéroo maanaam daal àndoog sam xel waaye daanaka kàddu gu ñu wax rek borom bi mooy jëlaat kàddu googu tontu yaa ayyuhal lasi wa qaalu yaa ayyuhal lasi nuzila alayhi dhikr innaka la majnun suratul xijr borom bi nee na ñoom day ña ngay wax naan yow mi nga xam ne ci yow lañ wàcce tudd yàlla gii nii di alquran dangaa nitee di ko yëpp yàlla di ko weddi àgg nañ sax ba ne daal kii ni mu xereñe ci li muy wax ak ni mu amee fit ak ni ko nit ñi wutsee ak niñ koy gëmee kii daal daa yoru njabar waaw ñu di ko wooye njabarkat borom bi naan waxaalal kaafiruuna haasa saaxirun kaddaab ñu weddi yàlla daal ñu ngi wax naan kii am njabarkat la tey li muy wax amut loolu ci suuratu Saad yooyu yëpp baat yu wax rek yu ñu rek yàlla ñëw jotliwaat ñu ko àgg nañ ci bane sax ab waykat la ki dal maanaam euh, lim nàmp ci euh, ay maamam ci arab niñ daa amee jamono ju ne xereñ lool ci wàllum way ak rab buy wax moom weesuwul lool ab waykat la wa ma huwa bi qawli shaair borom bi ne leen déedéet du du du shaair de <laughs> lii du waxi waxi waxi waxi nit qalilan ma tuminuun li leen dal kay mooy li ngeen gëm moo bariwut waaw li ngeen gëm moo bëriwut loolu borom bi mu ngi koy wax suuratul xaq kon ci yii la njëkk a tàmbali nag léegi nag ba yëf ya tàmbali yonent bi dëgër ci lim dëgër rek nekk ci aboo jahlin aboo lahab kenn ku ci nekk rek daanaka mu ngi def xeeti mitital yam gën a man ay dëkkandoom sangi màkk yi ñépp tàmbali nag wan kon nag kanam goo xam ne nii bokkut a kanam gañ ko wanoon ba mu wootee gutub yonent bokk na ci attaques yi nga xam ne moom lañ ko njëkk a jëmale lu jiitu ñuy ñëw ci nag ñi ko gëm mooy Abu Jahlin jéem na ay yoon faat bakkanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu wu ne rek lam mu cee jële du neex bokk na ci bis boo xam ne waxoon na de su ma ko séenatee mu ñëw taxaw ci kipaaru kaaba gi di julli danaa jël bakkanam te ni ma koy jëlee mooy yéen ñëpp na ngeen taxaw seetaan ma danaa jël xeer wa gën a di ci xeer yi bàyyi ko ba mu sujjóot sujjóotam yi muy def ma dóor ko ci bopp bi mu toj mu faatu benn yoon ñu noppalu it na ko waxee woon moom Abu Jahl nga xam ne abal abal xakam lañ ko daa woowee waaw tagg woowu lañ ko bi moo ko daa woowee Abu Jahl muy safaanub abul xakam ba yonent bi ñëwee nga xam ne moom du leen bàyyi xel moom yàlla rek ñëw jullig julleem kàbbaru kàbbaram jël temps su jooti rokon yi rokoam jël temps su jootuk su jootam jël temps aboo jaxli nag ñëpp taxaw ne kii lu mas wax def na ko gor dëgg ngi ni mu jël xeer wa di nga maam wuti yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu demee ba nga xam ne jege ne ko rek moom ci boppam moo sànnil boppam xeer wa ca àll ba daw wëqit wax daw yoo xam ne monsieur su tax xam aboo jaxlin sang bu tol nii gor gu tol nii di nga maam ku tol nii ci ñoom daw daw yii nii mu daw ba mu dawee ba nga xam ne giif na lam leen wax mooy la tiimoon Muhammad day moo ko jege woon rek mu lekk ma la tiimoon Muhammad su ma ko jege woon lekk mu lekk ma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma saa nekk loolu dara moo ma tiimoon te su ma jege woon su ma jege woon rek mu faagaagal ko bokk na ci muy ummu jamil mi mu tudd nga xam ne mooy soxna Abu Lahab moom àgg na ci waxam waxoon na ne waxoon na ne su ma ko séenatee mu jege fii ci kaaba gi danaa def ci moom lu rëy lu ñuy tudd waaw yor ay lu ñaaw rek moo xam ay ay ay ay ay ay ay yoo xam ne daal yuy gaañe la yoo xam ne nee su ma ko séenee rek danaa ko dana ngànnaay yi gën a ñaaw daal nee nañ Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toog ak Abu Bakrin ci wetu kaaba gi Ummu Jamil dafa ñëw ba jege yonent bi naan ko Aboubacar ana sa waaj te ki koy laaj kat moom moo ko gën a jege mu ngi dox digganteem ak Aboubacar bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëlmale ab Seydina Aboubacar ne ko Ummu Jamil kat dafa ñëw tiim la di ma la laaj yonent bi ne ko waaw waaw bi ma bi bi may laaj de suñu borom ci boppam moo silmaxaal ay bëtam ba mënumaa gis noonu mu ko waxee noonu la demee woon muntu woon a gis sa jëmm jii rek la doon gis li may jege-jege suñ borom daa selma ay bëtam ci man maa gis mu jamil moom moo daa jël ay dëkk ay ay ay mbalit da nga maam ay lu ñaaw ci xeeti mbalit yi gën a ñaaw di ko teg ci yoon wi nga xam ne mooy jugee ci kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci kaabal nga xam ne yonente bi bu génnee ubbi buntam rek ay tegg yu méttee lay def di teggi tegg yu méttee méttee méttee loolu ci jëf yu ñaaw yi nga xam ne Abu Lahab doon na ko def soxnaan di ko def ci yàlla tëkku leen ci alquranul karim kon bala ñuy ñëw ci saxaaba yi ni ñu leen doon métitale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo njëkk moo njëkk jot ci yëf ay jot yu méttee méttee méttee ginnaaw loolu nag ci la mboolem sangi makka yi kenn ku ci nekk ku amoonub jaam bu yëg ne tuub na wala nga am koo xam ne ni yëg nga ne tuub na ci sa biir famille métital yow yaa ci gën a yey yaa koy njëkk a def ab jàmbur dawul na métital kenn ku ci nekk muy bilaal mi ñuy bëgg a ñëw yaaser sumayya ba ci abu bakrin ak mboolem saxaaba yi nga xam ne ñëw ñi njëkk a gëm ñoom ñépp nag métital yi ñu doon def kenn ku ci nekk kala ko doon def mooy kala gën a jege ci wàllu askan bind bii ñu jëm incha allah incha allahu taala ci métital yi nag la ñuy ñëw yi ñu leen doon def ndax métital yooyu jullit bi xam ko day baax jamono jii nga xam ne nii foo jullee kenn du la wax dara foo tuddee yàlla kenn du la wax dara ba noppi daa mel ne daa gën a néew ci jamono jooju ñu ko doon def nga xam ne ñoom jamono yooyu ñu ko doon def jamono jooju la gën a metti ndax ñu baree bari faat nañ leen ci ñu baree bari méttital nañ leen ci gaañ nañ leen ci ñàkk nañ ci seen alal ci ñoom saxaaba yi ridwanullahi alayhi kon mbokk yi tey dafa mel ne dañ doon jël rek diggante étape al jahru bi daawa maanaam fësal gi mu doon fësal woote bi fësal gi mu doon woote bi ba ni mu dikkee nag ba yëf yi tàmbali nag ba métital yooyu tax sax ba Seyduna Hamza dugg ci lislaam ak wax ju ñaaw jooju ñu doon wax yonent bi métital yooyu ak wax ju ñaaw jooju ci la ci biir métital yooyu wax ju ñaaw jooju ci la Seydina Omar duggee ci lislaam daanaka yooyu yëpp nag euh, ci bindu fukki ñaareel bi incha allahu taala ci lañ koy waxtaane kon sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant euh, Cheikh Abdoul Qadir mi nga xam ne mooy taxawu jataay yi yëpp jataay bii ak jataay yi am yëpp di ñaan yàlla suñu borom mu nangu liggéey bi di mu dolli euh, ngërëm saxaabatu rasul ridwanullahi alayhim waaye di julli ak asalmal ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa aleykum wa rahmatullahi wal imaamu imaamul mursaliin ma'an والأنبياء يقيهم في الجوى الغمما يوم القيامة تاتي الرسل قاطبة والأنبياء